wala quwwata illa billahi al azim ñu ngi ci téere bi di al dawaani mooy sharxa risalatu ibn abi zaydin al qayrawaani ñu ngi ci woon laabal yaram ci sobe ab barab bi ngay julle ak yére yi ngay جلي مطلون شي تنبيهات لأي ترى الأول بنجك بي <clears throat> ولما قمنا مما قررنا شرين ليرل أن الوجوب نوارجي مقيد لنكو تنك بالذكر فاتلكو والقدرة أكتن دون القول boo waxut bi sunniyati ne sunna la boo ne dafa war balaa dindi sobe di la war waxoon nañ ne danga koy fàttaliku soo ko fàttee ba julliwaale ak sobe julli gi baax na waaye danañ sopp nga baamu ko su waxtu bu wéyit su waxtu bu wéyee nga ba soo mënut ba julliwaale ak sobe soo mënut da ngay julliwaale sobe gannaaw gu soo mënee dindi sobe si nag ñu sopp nga baamu ko su waxtu wéyee su waxtu wéyee nga ba loolu nag mooy boo waxut ne sunna la boo ne dafa war waaye boo ne sunna la fa innahu naka wax jooju xayru muqayyadin tënkuñ ko boo ne dindi sobe sunna la nag boo ne dindi sobe sunna la doo wax ne boo ko fàttalikoo wala nga man ko ndax ñaar yëpp soo soo ko mënee dindi. fàtte fàttewoo ko nga julliwaale suba da ngay baamu su waxtu wéyut su waxtu wéyee nga bokk boo fàttee wala mënoo ko it da ngay baamu su waxtu wéyut su waxtu wéyee nga bokk moo tax boo ne sunna la doo ko tënk it ngir laa fayda la di rek njariñ fii di nekk ci tënk gi li àndoo ndax moom laa yéen xattu du wàcc an martabati sunniya ci darajaay sunna maan aj si ànd ak lott wan siyaan ak fàtt su fekkee dégg nga da fàtte wala mënoo dindi sobe boo ne sunna la du ko génneel sunna googu boo ko fàttalikoo mën koo dindi sunna la boo ko fàttee wala mënoo koo dindi sunna la ba léegi waaw lay àtte bi daal mooy saa yoo julliwaale sobe rek da ngay baamu su waxtu bu wéet su waxtu wéyee nga ba gannaaw boo ko dindee moo xam da nga koo fàtte wala fàtte woo ko mën nga koo dindi wala koo dindi boo sunna la amma boo dafa war nag dafa war su fekkee fàttaliku ko mën nga koo dindi waaye soo ko fàttee warut soko mënul dindi warul kon boko ko wala nga lot ci da fay wàcc ci dara jaay war dem ci dara jaay ñu sopp amma boone sunna la nag moom sunna lay don nu mu deme a demee li anna al iadata ndax baamu fil waxtu ci waxtu ba murattabatun dañ koo toftale ala tarkiha ci bàyyi ko qawli ci wax bi sunnati ne sunna la boo ne sunna la dindi sobe sunna la saa ko bàyyee rek dangay ngay baamu si waxtu wéy si waxtu wéy nga ba wala kaan dina nekk naa tarku bàyyi nga xam dem ci tey di la yaa tey bàyyi ko sax da ngay baamu si waxtu nga ba bu min baabi awlaa rawatina maanaam ajis ànd ak lott bu fekkee da nga cee nga fàtte ko su boobaa it li yaate bi mooy daal mooy boo dindi sobe sunna la baamul rek su waxtu bi moo xam danga koo fàtte ba julliwaale ak sobe si koo mënu dindi ba julliwaale ak moom moom benn at la ngay baamu su waxtu bu su waxtu wéyee nga ba ne dafa war nag soo tayee julliwaale ak moom fàtte ko mën nga koo dindi julli gi baaxul da bu faw bu ko tayut nag wala da nga koo mënu dindi maanaam maanaam da nga koo fàtte wala mënoo koo dindi loolu ñàkk tey gi nga baamu su waxtu wéet su waxtu wéyee nga baa وتي بلو لا جاري الثاني نيار لولارال بموي سكت نوبنا المصنف تعرف كبير ان طهاره البدن تي لا بغيرم تعرف كبير دا فوخ تي لابر باك اك لابل يري واي واخوت تي لابل يرم وفي نك نتي تفسير اك تقري غو خاني محصله ليتنك با لابل يرم lañ cey tënk mooy an na zaahira ne aji feeñ je lu feeñ ci yaram wa minu bokk na ci daaxilul fam biir gémmeñ ka wala an fi ak biir bakkan ba wala usni ak biir nopp bi lool ci bitti yaram bi la bokk xukumoo atteeb laabal bitti yaram xukumul buqaati mooy atteeb laabal pakk barab bi ngay jullee ni ko war a laabalee noonu nga war a laabalee ca bitti yaram bi kon bitti yaram bi boo amee sobe julli gi du baax boo jàppee ne dindi dafa war bitti yaram bi nag biir gémmiñ gi ak biir bakkan bi ak biir nopp yi ci la bokk wasaw bu ak atteeb laabal wasaw bi dafa yore atteeb laabal yére li salaati ñeel julli ni war a laabalee yére booy julli noonu nga war a laabalee sa bitti yaram. wa fii nekk na ci laabal bitti yaram alxilaafu wuutee alladi gi nga xam ne dakarahu tudd na ko al musannifu taarifkat bi ci dindi sobe dafa waram la loolu nañ ci ñeneen dafa war ñu ne la dindi sobe gi nag ni ko war a dindee si sa barab bi ngay jullee war koo dindee sa yére noonu rek ko war a dindee si sa yaram amul benn wuute boo jàppee ne dindi sobe dafa war ci yére dafa war ci yaram boo jàppee ne sunna la ci yére sunna ci yaram wa kama taqaddama comme nu mu jiitoo fi ibarati xalil ci waxu xalil xalil jàngale bitti yaram dañ ko war a dindi maanaam sobe dafa war loolu yaakaar naa jàlloon na yaram nag bitti yaram dañoo war a dindi sobe waru ko tax biir nag mu ne wa amal baatin waaye biir yaram fa ma daqala la dugg na maa maidati ci biir taahiran daaji laab falaa xukuma di attalawu ñeel ko illaa baadan fisaalihi lu may gannaaw bu mu génnee gannaaw bu mu faccee wa xuruji mu génn min ha ci biir ba bu dee biir bila la lépp lu dugg ci biir bi laab na maanaam lépp loo xam ne ci biir bi la dëkk laab na balaa muy nekk sobe rek mu génn waaye tànk génn gut mu ngi des ci biir ba na bu génnee nag ah te loolu saa yu génnee lislaam sobe la koy attee nga ne sobe la kon lu nekk ci biir duñ ko jox benn at balaa ñu ko jox atte mu tàqali koog ji daal di ci bit waaye fekk ci biir rek mu ngi laab ndeysaan waaye la dugg na fiyaa ci moom xayru taahirin te laabut fa raajihu wax ji gën a lëng nag wujubu taqaayi mooy dañ koo war a wacc maal xudrati soo ko mënee wàcc wa zikri ak nga fàttaliku ko liñ la wax mooy loo xam ne ci biir yaram bi la dëkk kooku laab na fekk génnut amaa loo xam ne yaa ko dugal ci biir yaram bi moom da ko war a génne kon ku naan sàngara te sàngara sobe la dafa war a wàcc sàngara si ba mu génn bu dul loolu bu jullee du baax moo ko takkal kaw yaram moom sobe julli ñooyam ku naan sobe def ko war a génne. kon bu ñuy wax biir yaram lu ci nekk laab na mooy la ci juddu dëkk fa amaa loo fa dugal moom wax ji gën a mooy da nga ko war a génn soo ko fàttalikoo man ko soo ko fàttalikoo nag ba julli ba pare te naanoon nga loo xam ne sobe la nga baamu su waxtu bu wér su waxtu bu wér nga bàyyi su fekkee mënoo ko wàccu tamit wala la nga ci mën a wàccu wàccu nga ko li ci des mënoo ci dara ah su boobaa loolu di jéggal nañ la ko parce que mënatul génn. waaye soo ko fàttalikoo man ko nag dindi woo ko moom lay wane wa illaa ndem wëccuwut ko ah dina baamu asalaata julliga al mafruda gañ farataal abadan bu faw wujuban ci lu war alal xawli boo waxee bil wujubi ne dindi sobe dafa war ku naan sobe wala mu dugal ko ci biir yaramam man koo waccu waccuwut ko soo jàppee ci ñu ne dindi sobe dafa war kooku julli googu baaxut daf koy baam bu faw ndax mën naa génne sobe si génn wut ko wanat ban dañuy sopp mu baamu fil waxtu ci waxtu wa alal boo jàppee bi sunniyati ne sunna la soo jàppee ne dindi sobe sunna la moom mu naan sobe war koo wëcc wëccuur ko dem julli te moo ko tey day baamu su waxtu wéyee su waxtu wéyee mu ba amma bu tayut moom ñoom ñëpp ci yem day baamu su waxtu wéyee su waxtu wéyee mu ba moo tax mu ne wa amma indal ajisi waaye bu lottee ci wëccu sobe sax awin nisyaani wala mu fàtte ba julliwaale ak moom te wàccuwut ko fa salaatu gis gi saxiixatun aji wer la wa tuaadu danañ baamu julli ga fil waxtu ci waxtu ba wala waa qawli donte da ngaa wax bil wujubi ci war dont da ngaa jàpp ne dindi sobe dafa war mu naan sobe te wàccuwut ko dafay baamu mënu koo wàccu wala boog mu wàccu lam ci wacc li des mënut koo génne wala mu fàtte ba julliwaale ak moom julli gi baax na waaw. bu ko fàttee moom gannaaw bu ko mënee wàccu dañuy sopp mu julliwaat waaye bu dee mënu koo wàccu nag moom duñ sopp sax mu julliwaat parce que mu génn dégg su mënee wàccu dara nag am loo xam ne wóor na ko mënul génn waaye am na lu mën a génn loolu mën a génn bu ko génn wut tey julli julli gi baaxut boo jàppee dindi sobe dafa war ndax dindi sobe boo mënul lépp la nga ci mën a dindi da nga ko war a dindi wàññi sobe dafay war comme ni dindi sobe waree. wa hada tafsiru teqale bi caamilun aji matale la liman istaxmala ñeel ka jëfandikoo an najaasata sobeek muxtaaran fekk moo ko tey aw mutarran wala dafa loru maanaam bu fekkee dañ koo forcé naan loo ko sobe wala koo xam ne moo tey naan sobe yëpp ci yam da ko war a dindi rek moo kuñ tey taqal sobe ci yaramam ku tey taqal sobe ci yaramam wala kuñ forcé taqal sobe ci yaramam ni mu war a dindi sobe ci ku naan sobe noonu la ko war dindee dañ koo forcé wala moo ko tey wa moo xam taaba tuub na am laa wara déet moo xam tuub na ci jëf ju bon jooju mu doon def di naan sàngara wala sobe wala tuubut yëpp da ko war a dindi rek ndax dindi sobe moom ajuwut ci wàllu tuub naam tuubuta moo ko tayam teewut ko ala mastazharu ci li nga xam ni feeñ lu na ko al wujuhur yi li wujuhur yi gis daal mooy loolu la war a def dégg asaalisu ñetteel ba dégg nga لم يعلم لا لم يعلم قم من كلام المصنف في وقت تعرف كتب حكم طهارة البدن أتب لا بل يرم لغير صلاة نيل الجلي بري دا جولي موم لا بل يرم ني دافو وار ني سندر اما سو فك جولي و نك ندخ سيرم بي مان سنغ كو باي موم صوبي ولا ولا بو دا نكو ورا لابل لولو تعرف كتب تودو سي دارا waaye wa fii nekk na ci xilaafun wuute almashhur la siw minu ci moom al istihbaabu mooy dañ ko sopp la siw mooy dindi sobe sa yaram dañ ko sopp waaye warul la boo bàyyoon sa yaram mu am sobe it taxul nga am bàkkaar li xawlil mu dawwana ngir waxi borom mu dawwana mu dawwana dafa wax ne woyu kuréw sib nañ lubtu saw bi sol yére an najisu bu sobe fil waqti allazi ci waxtu bi nga xam ne yaariqu dana ñaq fii ci moom lu tax nag ñu ne booy ñaq sib nañ nga sol ko ndax boo ñaqee sobe si mën naa taq sa yaram ndax foo am sobe bu tooyee rek dafay taq sa yaram loolu booy ñaq sib nañ nga sol yére bu am sobe li tax ñu sib ko mooy bañ a sobeel sa yaram comme que dañ koo sib nag bàyyi luñ sib luñ sopp rek lay doon fay noonu naka waxi borom mu dawana yu fiidu dana jëriñ ne an na tadam mu xa naka riixoo riixoo mooy taqal sa bopp bin najaasati si sobe ma ko dañ koo sib taqal sa bopp sobe dañ koo sib loolu la ñu déggee ci li mu dawoon a wax wa qaala wax na saydi saruq wa saydi yusuf bun imran ñoom ñaar wax nañ ne annahu naka dindi sobe xaraamun lu xaraam la annoo naka taqal sobe kon sa yaram xaraamun dafa xaraam ñoom lañ gis mooy ne bàyyi sa yaram muy am sobe dafa xaraam kon boo ko defee ngay am bakkaar ñu ne déedéet dañ koo sib rek kon boo ko bàyyee def nga luñ sopp boo jàppee dafa xaram daal dindi sobe sa dafay war boo ko boo taqalee sa yaram bi sobe te ko tey da am bàkkaar boo jàppee dañ koo sib nag dindi sobe sa yaram dañ koy sopp boo fa bàyyee sobe def nga luñ sib waaye nag amoo ci benn <laughs> lii gën a siiw nag mooy dañ koo sib rek dindi koy dañ koo sopp waaye xaraamut wal xilaaf wuutee goog nag fii xëyril xamri mooy lu dul sàngara wutee gi ci lu dul sàngara la wa amma huwa waaye sàngara nag moom fa yaxrumu dana xaraam atada muqu riixoo bii ci moom ittifaqan ci dëppoo ñoom ñëpp dëppoo nañ ne sàngara taqal ko seeram dafa xaram waaw bu naan taqal yaram sobe dañ koo dañ koo sibam dafa xaram mooy bu dul sàngara amma sàngara taqal ko sa yaram dëppoo nañ ne dafa xaram wa fi xeyri najaasati ak ci lu dul sobe almaaniatu bi aji tere min taxaarati ci laab bi xismayaa ci ñaari ci ñaari xaajam ya dégg laab dafa am ñaari xaaj laab ci toj ak laab si sobe dégg nga ñaari xaaji laab moo am laab si laab si toj ak laab si sobe ñaari xaaj yooyu mu am su fekkee da ngaa taqal sa yaram sobe soo xam ni dana tax boo doon jàpp ndox mi du man a yegg sa yaram bi loolu dafa xaram loolu moom ñëpp nañ ci ndax jàpp dafa war lu lay gàllankoor ba doo mën a jàpp noonu dafa xaram kon lépp loo def sa yaram bi mu gàllankoor la ba booy jàpp wala booy sangu du tooy te foofu dafa war a tooy dem nga lu xaram dégg eh, loolu moo tax yenn borom xam yi di dañuy wax ne boo defee sa bopp bi loo xam ne nii tax na booy jàpp sa karaw gi du tooy loolu nga ci def bokkut ci karaw gi tax na booy jàpp sa karaw gi tooy te mënoo ñàkk jàpp loolu dafay xaram dafay xaram waaye borom Siraaju Saalik mu ngi wax ne mufti bi dafay xaram muy wax jigéen ñi loolu. su fekkee wóor na ko ne bu waxee jigéen ñi du tax ñu dindil nekk seen bopp bi na leen wax ne roy leen ngiram saaf yi mooy lu ngeen masaa seen bopp yi rek gën nga ne leen ngeen jàppee julli julli ko baaxut te ñoom wóor na lañ def seen bopp yi duñ ko baax su souvent mooy bàyyiloo nga leen julli rek te mën nga leen royloo beneen ngir ñu fexe ba laal njubu bopp ba rek buñ ko masaayee dana baax ndem foofu am na karaw bu nit ñi dëgëree bopp da leen wuutal genn waay moo gën ñuy far bàyyi islaam di alku loolu la bàyyi doon wax it ne bokk na ci fitna wax nit ñi ne leen ku mënul tajwid alquran boo jullee sa julli baaxut mu ne loolu réer la te waa ji nga koy wóor na leen moom mënul tajwid moom nii la mën a jàngee alquran nga ne ko boo mënul tajwid boo jullee baaxut mu loolu kenn du ko wax parce que moom ni mu mën a jàngee alquran noonu lay jàngee alquran bàyyi ko mu julli ci noonu yooyu min baabi taxfiif mu ngi bokk ci buntu oyofal ak bañ a dawloo nit ki waaye tekkul ne dafa dañoo war a sàggane yooyu kon bépp sobe soo xam ne boo ko defee sa yaram dafay tax doo mën a dindi sobe wala doo mën a jàpp wala doo man a sangu mu tooy sobe soosu dafay xaram wa illaa ndem dalay teree jàpp wala mu tere la sangu wala mu teelaa dindi sobe fala nisaa dit xëccoo fi isalatil maanii ci dindi aji tere min haa ci moom min hay su àndoo ngir ne moom xaa ilun aji diggale la ci diggante yaram bi ak ndox mi ko war a tooyal bu fekkee da nga am sobe soo xam ne dafa daq sa yaram bi te booy jàpp du tooy amul benn sikk sàkk ne da nga ko war a dindi ndax la ndax diggale la maam dafa dox ci diggante yaram ndox mi te lépp lu dox ci diggante yaram ak ndox dafa war a dañ parce que cër boobu dafa war a tooy waaye loolu nag mooy cër bi bu fekkee ciru farata la ci misaal booy sangu farata yaram bi yëpp war a tooy kon lu dox sa diggante yaram bi rek lu ñu war a dindi la amaa booy jàpp am na cër yoo xam ne sunna la comme loxo bi ba si takk njara bu fekkoon dafa am lu nekk ci loxo bi takk njara mooy fii jigéen di takk njara bu dee góor fi muy takk montor cet baaraam yi ba fi ngay takk montor boo amee lu nekk foofu si sa loxo bi ah ngay jàpp dindiwoo ko te ndox mi du tooy duñ la wax ne la da ngay cër boobu boo ko bàyyee it sunna rek nga bàyyi sunna boo ko bàyyee même yaa ko tey njàppal yàquut njàppal yàquut waaye dégg nga même yaa ko tey boo ko teyee njàppali yàquut boo ba tewee bàyyi sunna waaye nag man nga ci jëlee becc nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo sunna yonent bi bëgguñ ko koy bàyyi dégg ne sunna si boo ko bàyyee rek dara eh, sa jëf ji yàqu tax ngay bàyyi sunna bu yàggee yonentu jëppi la te bu la yonentu jëppee farata yi sax doo ko mën a defati dégg nga loolu waral borom xam-xam ne sàgganee sunna mën naa yóbbee nit ci sàgganee farata sàgganee farata nag ku ko def yàqu loolu waral li gën mooy toppatoo sunna même bu dee cër bi cëri sunna la waaye am na lu ci nekk loo xam ne def nga ko ca booy jàpp du tooy da nga ko war a dindi loolu moo gën moo gën <clears throat> xat zakar naa tudd nañ annal muraada na lañ namm bi saw bi ci yére mahmulul musalli mooy jullikat ba lam yenu <clears throat> wax nañ barab booy jullee mooy li nga xam ne ni sa cër dana ko laal booy julli nekkul sajaada bi nga taxaw sajaada bi nga taxaw bu amee digg bu sobee waaye yow laaloo ko rek dara nekkul ci barab bi nga jullee na laab mooy la sa cër di laal loolu lañ namm ci barab bi nga jullee <clears throat> amma yaram bi wax nañ biti yaram bi muy fépp fu tax sa yaram bi rek biir yaram bi nag la ci nek laab na waaye loo ci dugal mom dang ko wara genn yere nak moy la nga gaddu rek xam nga nit man na sulu yére bo xamni ciat ba dafa gudd lol ciat yere bu sobe sax yere bi sobe la yere du luy laal sa bi lepp lo xamni mu nga jokk ci la nga laal rek yere la nga sol rek yere la bo solon kala gu gudd ciat kala sa la <laughs> dafa wara lapp kon yére mooy la nga gàddu lépp dafa war a laab pour su julli gi baax war a ñuy bañ sol yére bu gudd boo xam ne dafay watatu ndax cët yére bu bu sobee sa julli gi dootu baaxati te booy jaar si mbedd mi amaana nga jaar foo am sobe wala nga taq sobe te doo ko yëg loolu war a yére bi mu gàtt moom moo moom moo gën dégg nga walam yoolam xamuñ min kalaam yi ci waxam xukuma man salla ateb ku julli bi jën bi man ci wetu ko xam ne nii bi saw bi nekk na ci yéreem na jaasatun sobe yére moom mooy lan xam nañ ko waaye léegi bu fekkee waa ji dafa am yére yéreem bi am sobe nga julli ci wetam nga xam ne yéen ngi laalante luy àtte ba yow barab bi ngay jullee laab na yére yi nga sol laab na sa yaram laab na mais ki nekk sa wet moom yéreem bi dafa am sobe julli ko baax na la baaxut. mu ne mu xasalahu lay tënk wax jooju mooy annahu naka li am mbaam isa saqata bu rotee yi ci moom maa la nga xam ne huwa moom muttasilun aji jokk la dégg bi xayri yi ci keneen ku dul moom fala shay alayhi dara waru ko illa an yasjuda lu mooy mu sujjoot ala shayin ci dara minu ci moom yére jàmbur sa yoon nekkul ci boo amee sobe loolu yow yàqul sa julli moo tax boo doon julli waa ji sës la nga xam ne seen yaram waa ngi laalante te moom yaram bi dafa sobe yàqul sa julli julli gi baax na amaana bu naati sa xel ak na laa ah, julli gi yàqu na waaye yàquwul de kaw sobe sa wow amaa bu dee soba si tooy la nag xam nga bu ngeen sësalante sobe si day taq si yére bi yow su boobaa léegi waa ji sobee tudd yow yaa sobe ndax sobe bi jugee ne ci waa ji ñëw ci yow su boobaa sa julli gi yàqu na bu dee sobe bi dafa wow nag. waaye yéen a ngi laalante ngeen di julli te moom yéreem bi dafa am sobe waaye nag sobe si taqul la yow dara ne guddi sa julli gi baax na bal sax yéreem bi yére keneen bu daan woon sa kaw fekk yaa ngi julli mu daanu sa kaw te yére boobu dafa am sobe waaye sobe si taqul la ndigi sobe si woo la dara nekkul si kon yére bu am sobe daanu sa kaw wala ngay julli ci wetu ko am sobe kooku yàqut julli loolu mooy wax ci loolu la bëgg a wax dégg kon sobe su jokk ci keneen bu daanoo maanaam yëre bu am sobe keneen sol ko wala boobu mu nekk ci barab buñ ko wekk wala yooyu mu daanu sa kaw yëre boo solu daal bu daanoo sa kaw fekk dafa am sobe te sobe si nekku sobe su tooy su lay taq yàqut sa julli bàyyil xel loolu ngay jullee koo xam ne nii wet dafa am sobe ngeen sësaloo yàqul sa sobe yàqul sa julli lu mooy nga sujjoot ci yére boobu boo sujjootee ci yére boobu su boobaa yow jullee nga ci barab bu am sobe dafa yàq sa julli wala nga lal yére ba taxaw ca di julli ah su boobaa nga ci barab bu am sobe parce que sa yaa fa nga taxaw kooku barab bi ngay jullee kon sujjoot gi du ci takk rek jàppal ne boo ci taxawee daal ah wala boog nga teg sa say cër. yi ngay jullee sa loxo ya wala sa jëbo wala nga taxaw si di julli su julli gi dafa yàqu parce que yére bi dafa am sobe kon sa barab bi ngay julli tey laabatut waaye bu fekkee waa ji dalaa sës rek di la laal waaye sa rukkoo yeeg sa sujjóot yëpp sujjóotoo ci kaw yéreem ba dëggoo ca tegoo sa say loxo kon yow sa cër yi fi nga koy teg laab na moom moo la rek te moom dafa am sobe loolu du yàq sa julli il faut ngeen bàyyi xel loolu bu baax. mu ne woyu xaqu dinañ yéegee bii ci masala boobu alwaladu doom xeyru taahiri siyaa bi bu laabut yére yettasilu dana jokk bi abi ci baayam fi salaati ci julli lu bëri baay bii julli amaana doom ji ñëw sës ci moom jege ko lool loolu yàqut julli baay ja bu fekk bu fekkee yére xale bi dafa am sobe moo tax mu ne falaa salaatu julleem illaa iza sajada lu muy sujjóot ala si dara min ha ci yére xale boobu sa doom bu ñëwee sa ci yow nga sujjóot ci yéreem julli ga dafay yàqu mais bu dee yow sa cër yi ko ci kaw yéreem ba loolu du yàq sa julli dégg ci kaw nga bañ a yenu xale ba bu xale bi yéreem dafa am sobe nga yenu ko ah sa dafay yàqu de dégg nit ko am sobe boo ko yenoo sa julli ga dafay yàqu. parce que xenu sobe dafa yàqu julli waaye yére bu am sobe kese nga xenu ko yàqu sa julli ndax yenu nit ku am sobe nee nañ moo gën a diis yenu yére boo xam ne dafa am sobe waaye nit yoru ko kon xale bi bu dee yére bi dafa am sobe nga fopp ko wala mu yéeg sa dox gi wala mu yéeg sa gannaaw gi dafa yàqu sa julli waaye bu la taqee sës rek yàqu sa julli amaa yére bi moom même bu daanoo sa kaw yàqu sa julli boo si sujjoo tut sa cër yi tegoo ko ci kawam. loolu lu jërë teqale ndax ñaari masala yu bokkuñ yére bu daanu ci kaw nga yenn ko yàqut julli waaye xale wala nit ku daanu sa kaw nga yenn ko te dafa am sobe dafa yàqu julli amma nit ku la taq rek sës la wala yére bu la sës tamit loolu yàqut julli ba tey moo tax mu ne xale bi bu sësee ci baayam te yére bi laabut loolu du yàqu julli lu mooy mu sujjóot moom bàyyi ji sujjóot ci yére xale bi aw xamala wala mu yenu moom muy julli laabisa siyaabi ku sol yére almutanajisa bu sobewu nit ku sol yére bu sobewu boo ko xenewoo day yàq sa julli te waxoon na léegi ne yére kese moom bu daanoo sa kaw te amul nit ku ko sol du yàq sa julli mislaañeer kaba ni ki mu war a saxiiru xale abaawu baayam aw yata'allaq wala mu aju bi raqabati ci doqam xale bi ñëw war baayam te xale bi yéreem dafa sobe julli baa ji yàqu na wala bàyyi ji di julli xale bi téye ci dox ga mu yëkkatiwaale ko julli bàyyi ji yàqu na ndax ku yenu ko am sobe sa julli dafa yàqu waaye bu doon yëre bi du yàqu awee taxlaqa wala mu aju moom xale bi bi raqabati ci doxam wa yaqumu tam jug bi ci moom bu doon dafa sa dox gi rek yow nga su jël loolu yàqu waaye boo ko yëkkatee dafay yàqu waaw moo tax wa yaqumu bi ci xale bi wowut a fekk moom bàyyi ji fi salaatu mu ngi si julli fa tabturu julli gi dana yàqu li xam lii ngir yéen a gëm yéen a an najaasata sobe mu ne ko waaw lu tax nga wax lii yow yaa waxoon léegi ne bu yére daanoo ci kawam yàqu julli ga nga ne bu yenoo xale bi julli gi dafa yàqu mu ne le an na xamla zit siyaa bi ndax yenu borom yére al mutanajisatu bu sabewu ashaddu moo gën a tat min suquuti siyaabihi ci rot ak yéreem doona xam lii te yenoo ko nit ku am sobe nga yenu ko moo gën a jafe moom lañ gën a diisal ci yéreem daanu sa kaw te yenoo ko su defee lay tënk bi foofu mooy yow bu dee solo yére bi waaye créé na ko sol mais sës na la te moom dafa am sobe te sobe si tàqul la loolu yàqut julli moo xam sa doom la moo xam ku mën a doon waaye boo yenoo ko am sobe nag dafa yàq sa julli yére bu am sobe nag bu daanoo sa kaw nga yenu ko mais su jootoo ci tegoo si say jër loolu it du yàq du yàq julli bu defee loolu moo doon mottali darsu boobu incha allah léegi barab yi mu war a ñëw muy atteeb julli ci. barab yiñ aaye jullee dafa am barab yoo xam ne dañu fa sib fa jullee am barab yoo xam ne jullee fa dafa xaraam loolu defe naa moom lañu war a jàng ci darsu yi ñëw muy juróom-ñaari barab nañ ko def darsu bo moom it in uridu al-islaam mastata'tu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh